munti nekk si biir le leader dans son domaine. ah lii ñu am lépp Tawfekh a may. gën ñoo gàtt ñoo Tawfekh sëriñ bi. Écoutons maintenant son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, dont je suis incroyable, incroyablement fier de dire qu'il effectue aujourd'hui sa première visite à l'étranger depuis son investiture en avril dernier. La parole est à vous. Monsieur le Président de la République française, notre hôte, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Gavi, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les autorités françaises pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Paris. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à cette campagne de mobilisation pour la souveraineté et l'innovation vaccinale dénommée lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Je félicite vivement les organisateurs de cette rencontre, Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin, l'Union africaine à travers le Centre de contrôle des vaccins CDC Africa et notre hôte, la France, pour leurs efforts au service de la santé publique. Par ma présence à ce forum, j'ai voulu exprimer mon attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe